nekk di ci waax même dans les réseaux sociaux ñoo waxoon lii ñoo waxoon lii ñoo waxoon mais dama ubbi euh, le programme de Diomaye président ci euh, axe un numéro un bi ci troisième paragraphe ñu ne l'élaboration des standards et l'application des normes de qualité dans tous les secteurs ñu ne ci ponk bu njëkk nous consacrerons l'appel à candidature pour certains emploi de la haute fonction publique et du secteur parapublic et normaliseront les recrutements civils et militaires par le recours exclusif euh, au concours mais début bi laa njëkk lii rek dañu ne dinañu def appel à candidature pour yenn mais certains emplois de la haute fonction publique tubaab lañu bind de boo ko tekkee ci wolof mooy certains mooy du ñëpp ba pare dénkaane ko wóolu ba pare mu am ay normes yoo xëy bu ngay da ngay def appel à candidature euh, du question toog ni bon qui est candidat venez envoyer moi vos CV non xam nga question lan la da ngay jël benn structure ne ko yow yaay dafi appel à candidature bi léegi da ngay def déjà appel d'offre ci ban structure nga koy jox ndax da koy jox leeral communication wala nga jox ko amir business wala da nga def appel à candidature ci ñooñu teg benn marché ñu ne léegi ba ñu defee pour marché bi Amir moom moo ko gañee moom moo war a saytu ci appel à candidature boobu ba nga xamee ni Birahim Touré Cheikh Diop Thianaloum kuy yóbbu candidature am doo ko yóbbu présidence de doo ko joxe premier ministre tamit de xam nga ko koy jox kuréel googu nga xam ne moom la ñu taxawal pour mu jël candidature yi après segg ci candidature yi woo leen ña ñu war a woo parce que euh, tey booy dem ba ci internet bi ngay def benn candidature pour dama bëgg a doon correspondant wu euh, BBC mais téeméeri nit dañu postuler ñuy postuler selon na nga bindee sa CV sax ñu woo ci dix ne leen euh, jot nañ sa CV mën nañ la léegi jour sàngam nañ la def rendez-vous appel téléphonique pour waxtaan ak yow pour xool ndegam li nga bind ci CV bi ak documents yi ñu jox ak ni ñuy waxee ak yow ndax. am na wala amul ak xool ndax sa présence ak yeneen ak yeneen parce que gis nga ci appel à candidature wala li ngay wax naa ni da nga jël yenn poste directeur mais résime moo fi nekkoon résime bu bees ñëw waa tey bu ñu bàyyi woon masalan ci média lañu nekk ñu bàyyi RTS directeur général ba fa nekk boobu ba tey bokk ci parti politique fësal boppam ci mbirum parti politique nga bàyyi ko fu bopp ba tey na ni comme damaa wax ni damay def appel à candidature pour certains emplois euh, donte tout se passe bien naa ko fa bàyyi euh, le temps que may taxawal samay candidature xool ñan lay doon politique ou pas politique mën naa am sax ci appel à candidature boobu CV bi CV au directeur général RTS gën yeneen CV yi ñu lay indil yëpp. non léegi structure bi war a jël appel à candidature yooyu yow nga nekkoon ci nguur bokkoon ci nguur sa CV ak sa expérience ak sa professionnalisme ëpp bu ñeneen ñi ñëw pour joxe seen candidature waa léegi da ngay ah bu dee ci logique ngay xool da nga naan waa bu dee ci CV bi wala ci expérience am a ah, moo ëpp expérience ñii fi doog a ñëw de kon nam koy maintenir bu dee logique ngay xool mais dañ la ne ci certains postes yi mën nañoo dañoo war a def appel à candidature mais am na yenn yoo xamee ni mais din dénkaane ko wóolu nam koy jox ñoo xamee ni am nañu profil bi war nañ ko mën ne leen teel leen ma mën naa am fii ak un an wala deux ans ña ma dénkoon ne yaay directeur nangam résultat yi ma jox baaxul ma changé jox keneen mais am na post yoo xamee ni man président de la république am naa sañ-sañu am ñu ma ko jox mooy nag li ñu woowee réal politique. ca la ngay wax nee ni nii daa def moo tax quand j'ai vu seen programme Diomaye président mu ne dans certains loolu mooy déjà moom anticiper na ni coow dina ami mais moo tax ma ne dans certains wala ci pour certains emplois de la haute euh, fonction publique maanaam du pour ñëpp moom mooy président moom lañ fal mu jël premier ministre teg fa bu ko neexoon eh, nee ni Ousmane Sonko du ma la def sax premier ministre dama lay def secrétaire général présidence de la République euh, wala euh, directeur de cabinet du président de la République Jean Collin nekkul woon premier ministre waaye ci ay jamonoom c'était le super puissant ministre bu yëngu sax moom ngay njëkk a xalaat Ousmane Tanor Dieng yàlla suñu borom xaaru ko àjjana nekkul woon premier ministre mais aux côtés de Abdou Diouf c'était le super puissant aussi donc bu ko neexoon ne ni du ma jël diw mais président la république moom lañu fal mais euh, donte lii la bindoon ci programme mais li mu bind ci programme ba léegi wàcce ku ko de ci li mu wax ci wàllu employé wàcce ku ko de on a pris certains emplois combien de postes de directeurs généraux euh, ak directeur rek ñu ngi fi yoo xam ne joxeeguñu ko duñ jeex sur presque ci fépp nag parce que on n'est pas il y pas cent direct il plus de cent euh, structures yoo xam ne état moo ko moom wala mu jiite leen yoo xam ne soppeeguñu ko on a pris combien ñuy jël fan yi passé yaaguñ bariwul c'est une dizaine je pense. ëpp ko wala bu ko ëppee tamit demoo noonu mais ça veut dire que il encore possibilité de cet appel à candidature l'essentiel mooy ñoom ñi fi nekk tey. la ñu waxoon nañu ko sàmmoon teg nit ñi mooy dañu ne pour certains emplois nañu gis kon appel à candidature mais quelqu'un m'a dit c'est un expert ci wàllu gestion de ressources ak management qu'il te faut minimum trois mois pour taxawal kuréel bi nga xam ni moom moo war a saytu mbirum appel à candidature yooyu ci ay appel d'offre kan lay doon kan moo koy gagné même bu dee urgence nga ko def sax ñu ne amir business moom moo ko gagné léegi amir moom ñu jox ko critère wu appel à candidature boobu booy jël jox ko tamit poste yi nga xam ne moom lañ bëgg pourvoir ça peut être un travail long et fastidieux mais dafa am ay urgence ñoo naa falu ah mais euh, ci sama wàllu kaaraange par exemple ni mu changé euh, chef d'état wala au commandant gendarmerie naa jël ko xam ne peut-être moom laa gën a wóolu parce que am na peut-être benn passif bu ma am ak ancien général bi donte c'est général bu doon def liggéeyam ñu koy sant muy def point mais dinaa ne ah dinaa jël ku ma jege bi mu ñëwee lan lañ ko jox dafa laaj armée ne leen jox leen ma euh, aide de camp du jox ko aide de camp est-ce que appela à rek yeneen ak yeneen mu ngi ci am na loo xamee ni c'est sa décision peut-être mën na ci yabal pres euh, premier ministre Ousmane Sonko nekk dafa ma nangam. mais am na yoo xamee ni ala kulia dina am ay appel à candidature dina am ay nit ñoo xam ne dañuy xool seen CV pour jàlle leen mais ñi ñu fi teg nii j'entends les gens dire non Pape Alé Niang euh, est-ce qu'on va dire que le docteur Cheikh Diagne pas euh, xamul mbirum ONAS ci koo xamee ni yow ci àdduna da ngay dem di jàngale mbirum ay assainissement di jàngale mbirum environnement di ko def en Afrique ñu jël ay programme di la jox ne la bindal ñu programme ci lu jëm ci wàllu environnement assainissement nga ñëw ne ko yow yaay directeur ONAS ñu Pape Alé Niang la seule. Pape Alé Niang est journaliste. Pape Alé Niang est journaliste. journaliste d'investigation ndax far na wala farul il a fait son son son son son métier comme on dit et il le fait depuis assez longtemps et il le fait euh, Pape Alé c'est pas deful mais il a fait les grandes euh, stations de de ci wala wàllu presse jaar na Sud FM jaar na feneen feneen. Euh, te au delà xam na métier bi te directeur général may lan luy directeur général wala directeur da am ñu lay jàppale am ay techniciens mais am nga yow sa sa mën-mën j'ai entendu un Matar Sylla kenn du neen Matar Sylla xamul dara ci presse mu ne ni kii mais liñ ko dénk war na ko man mais pourquoi est-ce que on veut la promotion de euh, est-ce que euh, Racine Talla était plus journaliste que Pape Alé mës nga dégg papier wu Racine avant mu nekk directeur général RTS mës nga suivre reportage wala chronique am non il était le directeur général de la RTS c'est pas autre chose c'est c'est dans la pratique est-ce que tu as entendu une fois Racine Talla dans la pratique ñu ne kii journaliste la pourtant ñu ne nii def na nangam def na nangam def na nangam non est-ce qu'il est plus méritant que Pape Alé Niang sur le plan journalistique professionnel on te ah directeur général gestion la ni ngay gérer kër geeg yeneen ak yeneen mais directeur général RTS da am directeur u télé di am directeur u rajo bi yow directeur général bi di nga chapeauter tout le monde et tu as des conseillers au niveau de la RTS par exemple le directeur général de la RTS day am ay conseillers yoo xam ne ay journalistes ay professionnels ak yeneen ak yeneen ci euh, expert management yeneen ak yeneen il faut pas que ñu jël le poste de directeur général yéegal ko ëpp kii ko teg ko foo xamee ne àggu fa benn et un professionnel comme Pape Alé Niang qui est mais euh, xam lu ñu ko war a ñaanal euh, na yen bi oyof on parle de Cheikh Bamba Dièye c'est un ancien ministre xam na lu bari Cheikh Bamba Dièye ku ko invité ci plateau xam-xamam ngay njëkk nawloo ça veut dire que am na lu mu xam nga dénk ko ay AIBD mais c'est pas parce que c'était un partenaire politique mais am na lu mu xam mais on les laisse faire tu prends secteur par secteur boo jël ci ñu ñu jël ci ay ay nomination ci directeur euh, yu ñu yu ñuy nommé mais ñu ci bari da nga naan ah diw de profilam ça correspond ça correspond au au au poste naan peut-être l'homme ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut mais li ëpp important c'est de les voir à l'œuvre c'est de les voir à l'œuvre et euh, moi directeur ou président de la République mais écoute euh, xam naa Cheikh Diop donte peut-être bokkuñu parti politique mais xam naa ko wóolu naa ko ah su may dénk moom laay njëkk wóol dénk après mais doo xool nag ci yeneen poste yoo xamante ni c'est stratégique aussi kan laa fay teg ci wàllu compétence mais comme ils l'ont dit à certains postes ah, nañ leen may certains post yooyu nag wax dëgg fa ne candidature yi ñuy wax euh, boo gisee nomination yi ñu njëkk a def est-ce que concrétiser nañ ko réellement bu ñu xoolee.